imagine toi nga ñëw di annoncer sa yaay que ni sama papa daf ma bëgg takal jabar te kim may takal ñeñu lay doon sa yaay réagiré ma xuja ma xuja ni ma ko bañé ma xuja ni ma ko bañé ma xuja man ni ma ko bañé yalla mama lan mo xew fi lo leen di yuuxu yaay ma ko ma def lii man ya, ma ko wat na ko ci yalla ni ma ko yaay wat na ko ci yalla ni ma ko yow bis bo takké ki do ci am bané non séeri bete bete man fallu pour l'instant gisuma séeri bu ko da y'a pa ko conseil a lui seul mon gars il faut ngeen bàyyi di jaawale personnage ak personne man maa ngi nii caam laa sant mais su may seetaan série bi damay xam ni lii personnage kase la il faut ngeen xàmmee loolu pour ngeen mën seetaan série bi mu neex bu leen fàtte ni mbokku série bi cinquante sur cinquante la lu sumulu wax ñii Sanex wax na ko ñii da di sumulu day wax di dëggal ngay xam ni kii nii mer na dafay dugg carrément ci personage bi mais neex bu dee wax dangay xam ni kii comédie la après yow doo sentir que ni Sanekh mi ngi wax ay mots yoo xamante ni doo sax comprendre yee tey dama leen indil Sanekh ak Soumboulou maanaam Sanekh li muy xas géeri sumbulu tamit nu muy xas caamee ni en tout cas série bi tàng na jër li ma si gën a neex mooy série bi ñun ñëpp am nañ ci lesson boo xamante ni ñun moom lañ siy jàng nañ bàyyi di xool côté négatif te ñuy xool côté positif série bi neex rek la def car affaire de waaso dafa bëri léegi si town bi maa ngi dégg ñu naan loolu amatul mais xanaa yéen da ngeen feebar comme d'habitude épisode 2 dugg na épisode 3 dugg na damay jël partie yu gën a soo comme ni ñu ko defee woon ci analyse 1 bi gis naa nag ñi ngeen liké par analyse 1 bi dama see kontaan kon nag boo leen bëggee analyse di am chaque mercredi aimez la vidéo abonnez-vous boo abonné wul woon abonnel nga activer sa notification chaque mercredi nga dugg sama seen YouTube xool analyse bete bete bla boobu bu len faté yi ñu géwoon ci bet mën ngeen zé ak sama promo code 21F saa ba di nga boni 156 francs lien bi mi ngi ci commentaire yi sama gaay yi dañuy jitu ci sanex après ñu dem ci sumbulu mais dafa melni yeen yéen sumbulu rek ngeen bàyyi xel mais bàyyi woo leen xel sanex dama len won sanex ni mu résisté ci série bi mais sanex ni mu may dajé yaakaar naa ni tamit non la len dajé sanex yalla ko yalla fay way <laughs> sanex ak sumbulu mérité nañ meer ak xam naa série bu jéxé série ba ba muy jéx polémique lay doon moom ma lañ ko wax nañ seetaan ñeme ko ñu dem ah let's go déglu leen rasis saa neex rek woon fii xam nga li tax ma bëgg toogaay bii ngeen toog ma fekk leen yéen ñaar ngeen toog waxee laa bëgg ngeen déglu rek yéen a <laughs> bokk seen benn maam muy man mii yéen bokk seen askan bokk seen xeet ay bala mañ sa ngeen ay bala mañ sa ngeen kii maa jur ndeyam sa maam di jur sa ndey ak man mii ñoo bokk ndey ak baay du dëgg sa la kon nag du seetaan askan wi di tas kii sa jabaru yoon yàlla la boo ko takkee sa faam te yow it om nga mat nga ko mat ngeen xarum tabaski mat ngeen tudd fii ngeen ne di dugg ci beneen eh, ay surface de réparation wu jàpp football leen ci seen terrain. naan sa jus bi. dina naan dina naan. dina naan sa jus bi nga ñëwee ba tey naan la. dégg nga li ma la wax maa koy dox wax ko maay maye. bilaay kii dafa raciste xew-xew bi. kii dafa raciste bu la neexee nii nga ñibbi suba ma maye bu la neexee balaa ngaa. suuf si daal caa ah, la sant ma maye lu dëgg. doo ko maye ko dul caa Taniak lima wakan wax Mamban dek. man man de ah waa neex na de. waaye waaw jamono lëppaa lëpp la la dikkee naaw ba sax doxaanoo defoo dara jamono lëppaa lëpp. kii itam maam yaa ngi woon bële gizi dekat mii. moom est macam mi Wah. toog. du ma caam mii. waaw gis xeetam ak deretam nga góor tangga. yiwe am shokna. moom mu masalah. sàppala pala <laughs> gars yi neex <laughs> na mais Sanekh raciste bi mu raciste ci série bi maanaam comédie bi mu si boole moo tax yéen mënu leen ci bàyyi xel mais barki alxuraan Sanekh mag Sanekh mi ngi may dajji mi ngi may rey <laughs> ñu continuer fii moom parti bi moom mën na ma rey moom leen Sanekh rek kooni kooni yamal fii mu yam fa di. lépp tey maam. bési yi nekk fii. naan dañuy xasaa xamoo sa bopp yaa. ma sa papa. maam jërëjëf. maa la gën a bég. maam balaa may dem foog ma ñëw gisaat la. dégg nga man lii laa bëgg. géer ñi bu ñuy wax nii la ñuy def seen loxo xoolal bala may sa bi ñuy wax dégg nga man lii laa bëgg. amiin maam ngi dégg. waaw góor. yéen a ngi nee na géer ñi bi ñuy wax nii la ñuy seen loxo yi mais xoolal ba xoolal bala xoolal bala man say mais bu koy wax comédie la koy waxee alors que Soumboulou moom buy wax day ñëw xadar léegi nag kii seetaan du xam ne que ni lii série la mais Sanex li muy wax moo gën a daasi foofu Sanex <laughs> déglu leen waaw waaw taal taal say lex la de lex ñaari lexi bay la may sa yu daje yaa ko moom biisu ko ngeen biisoon te waaw Sanex na ko na ko say lex la yéen a xam waaw man daal réew na la doom kii war a na sa papa na ko dégg nuyul ma sa papa. xool leen xool leen xool leen saa nekk xësaa ñëw. doo ci dal de xësaa doo ci dal. gis naa la ngay appel noonu di di déclaré wu mel ni mel ni garde forestier dafa planqué noonu sa fi ne xàmmewu ma booy fii du neex fii fii du neex maa ngi fi kër maa ngi fi e eh, wuy ma sax circulé circulé taalal taalal na leen leen di tàkk. circulé acca circulé circulé ayca ayca bul indi embouteillage circulé. ayca ayca. Sanekh yàlla nga yàlla fay xolam Sanekh bii non Sanekh bii ma soo seen Sanekh lii rek lay see. barki alxuraanul karim su ma seen Sanekh lii kase lay see. j'espère que tamit gis ngeen ni Sanekh di sànnee xeer géer yi. seetaan ngeen déglu ngeen parole yi ñu dem ñu xool Soumboulou nan la duggee ci jeu d'acteur bi nan lay joxee à fond nan lay jooyee non non Soumboulou Soumboulou ah Soumboulou boy ñu seetaan Soumboulou ak doom ji. nga annoncé ko ni dañ koy taqal jabaru caameem jabaru ñeeño quoi. sa papa dafa forcé. Eh. lay ñaan ngir yàlla rek. <laughs> duudu ma. duud di ne xariyeer nii. yaayam man sama sama papa forcé ma dara man man ma ko jox ni ma ko bañee ma ko jox ni ma ko bañee. waaw lan moo xew ne mbaxu. yaay. waat naa ko ci yàlla ne ma yow bis boo takkee kii doo ci am bànneex. ma lan la lu xew. ba keroog ngay dee. doo ci am ndam doo ci am bànneex man maa ko wax ma ko. wax yi nga. sagam man maa la jur ci am ndam. ma ko juróom-ñeenti la ëmb ëmb bu metti ëmb bu metti la ni nga nga ne man ngay sa papa di ma nga ne yow yaay relève bi. nga ne yow yaay relève man ngay tot. yaay lan moo xew yow tamit bàyyi sa jooy yi lan moo xew lan la. ah sa papa nee na dafay mayu. may kan. maxu jabar. kan la may. doomu maxu ja Jeynaba. loolu bu amee. déedéet dinaa rey sama. maa ah, loolu mënul nekk Jeynaba kii bi mën na ma rey barke yàlla son bi mën na ma rey. ñu dem ñu xool parti sumb ak nday jaay di di wayo oh, waaw nak moy gatché national deug ci kër maram sal bi waaye maram yow ya, li mom li mom lan lan. deug alkali rek la def luma ma xari rek. baas naa ya, alkali mi nak mom lan la ko jox wala lan la ko ma sol jaxal na ma du jam du jam neex waye nak dala dala bu fi nek dikkat dikkat bu fi nek luy ñaaw ñaaw no paré ndax fim ton ni li mom man gisuma lu ko gëna ñaaw ci addu neñay neñay bëgg na la ak yal neñay bëgg na la tax mu ma dal neñay bëgg na la xam décidé ni ah. jël samay bagage and ak samay dom dem bayyi alkali aduna ak Allah bu ko neexee nag kërëm mu duggal fi ku ko neex <laughs> maître xalé ay lire lañ wala dañuy boot xam nga ni génnoo bougé wo maître yaa ngi may dégg togal ni ma wax la ñaari baat yow laay waxal ma dem <laughs> nee na ko dangay génn mu ne ko métti xale yi ay liir lañ <laughs> wala dinañuy boot Chérif c'est un sama gars yi épisode 2 bi ak épisode 3 yi moo mas gën a neex mu indi ko tegal leen ko gars yi boo leen bëggee analyse di am ngir yàlla di leen like vidéo yi ko abonné wul woon tanga may seetaan abonneel abonneel ci seen bi bi mooy seen bu baax bi abonneel nga like nga like nga like ñu xalaat beneen mercredi biir ñëw fekk ñaar épisode du gàtt yi gën a neex ma tegalaat leen ko bon jot moo amul suma seen seet may def épisode bu dugg rek ma def si analyse mais xam rek ak job bi ak xam ma yaa ma gën a xam aimé la vidéo ngeen partagé ngeen commentaire sama gars yi yéen ñuy critiquer série bi naan leen ndox ngeen xam ni série bi day dem ba fin ngeen naan ndox ak even prod rek tout est possible partagé aimé leen ngeen abonné aimé leen sama gars yi aimé leen aimé leen di leen aimé ngeen di partagé vidéo yi xamoon dañ siy a kontaan après dinaa indi yeneen affaire billaay wallaay wa taalaay déggee Ousseuf ba beneen ñoom déggee sama